di sàkk si moom ak njëggal di ko ñaan mu musal ñu sunuy ayu bakkan ak sunuy ñaawteef yi jëf di seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhaanahu wa taala rekk moom moo yeew ak jaamu di seede ne moom moo yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu di jaamam di ndawam diko ñaanal yal na jàmmi yàlla ak i xéewalam ak i barkeem yàgg a wàcc ci kawam di ko ñaanal moom ak i saabaam ak ña toppoon seen ginnaaw ci ak rafetal ba ilaa yawmi diin di seede kàddu yi gën a dëggu ci kàddu yi mooy kàddu borom bi subhanahu wa taala moom yàlla li mu wax rek kay dëgg lépp lu wuuteeg la mu wax ak neen la di seede ne yoon yi gën a jub ci yoon yi ak njub gi gën a jub mooy njubug yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa di fa mu jaaroon tegoon fa tànkam tànnoon ko loolee rekk di ak njub lépp lu wuuteeg ak yoonam moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ak réer la ak cànkute la sawara lay yóbbu boroomam waliyaadu billah lii di ab jotaay boo xam ne ñoo ngi koy fas ngir leeral ci benn bataaxal boo xam ne mi ngi wax ci attey lii ñuy tuddee mawlid wala mawlud di feetewoo juddu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gën si ak gàmmu ci wolof bataaxal bi benn boroom xam-xam bu mag nekkoon mufti ci Arabie Saoudite jamono yële ñu koy wax cheikh al allaama muhammad ibn ibrahim rahimahullahu taala bindoon ko ngir tontu si ñi nga xam ne ñoo koy yoonal ak a daganal lii di gàmm ak yenn lënt lënt yi nga xam ne ña koy daganal dañ ciy sukkandiku mu ñëw di ko tontu benn par benn bataaxal boobe moo waral jotaay wii kii di cheikh Moustapha ibni Muhammad Mabaram xafidahu llahu taala chara leeral bataaxal googu ci càkkutéefu mbokk yi ci dawra bi nga xamne taxawalon nañ ko ren mudi dawratul imam malik ibn anas as-salafiyya ci 5e édition ci ren de atum 1442 ci gadda gi di yamok 2020 mbokk yi sak won ci mom mu def ay jotay ci atay gamu mu tannon ci bataxal bi mu di ay jotaay yu ama ama am solo yoo xam ne bi idnillahi tabaraka wa képp ku ko teewlu du bàyyi benn lënt lënt ci masala mii di gàmm lu dul ne leeral na ko ci ay firnde yu leer naññ ba mel ni jant bi kon ba mbokk yi sàkkoo ci moom loolu moom a Cheikh Moustapha mu tànn bataaxal bi di al imam muhammad ibn ibrahim ali sheikh rahimahullahu taala comme niñ ko waxee nga xam ne ay lënt lënt yu bari ci masala mi di feetoo juddug yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom it ngir tontu ci aw nit ñi sukkandiku ci yenn mbir yi ak lënt lënt ngir yoonal mbir moomee moom cheikh mustapha xafidahu llahu taala mu daal di wax ni balaa ñuy dugg ci bataaxal bi dina rafet mu jiital ab laytaay ci ñaari mbir yu ama am solo laytaayee ko bataaxal bi ba sa jiitu mooy leeral diine jii di diine lislaam mat gi mu mat ne aw tëralin la législation la bo xamne dafa mat seuk soxlawul ben yoon ñu ci yok dara ben yoon ñaarelu mbir moy mu wax ci ak teunk mbir mi di gam di bida bi ak ciosom fan la soso ak jan jamono la sosu lañ ko indi ci lislaam ndax nee na ngir jëriñu ci bataaxal bi boroom xam-xam bu mag bi bind du mat mukk lu dul nit ki bu xamee maanaam biddaa bi fan la sosoo ak nan la sosoo bu boobaa boo liiree bataaxal bi danga jariñu bu baax a baax a baax kon boo delloo ci laytaay bu jiitu bi mu ne amul benn wuute bu am ci képp kuy askanoo si lislaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy yenente bu mujj moom la yàlla subhanahu wa taala tëjee yenente yi comme ni ko borom bi tabaraka wa taala waxee walakin rasul allahi wa xaatama annabiyin ca ahzab ne muhammad day du bàyyu kenn waaye muhammad li mu doon ci dëgg dëgg dëgg mooy ndaw yàlla la yàlla subhanahu wa moo ko yónni waaye moom moo ñëw di mottali di tëj ñi nga xam ne mooy ñi yàlla subhanahu wa daan yónni kon ba mu nekkee moom yenente bi sallallahu alayhi yenente bu mujj la shakka ne kon diineem ji soxlawul lenn lu koy mottali balaa mu fi jóge comme niñ koy leralé ci kanam ci ay bi di ñëw dafa mat sëkk mboolem texte yi ci alquran ak sunna ak texte yi jóge ci as salaf as-salih dafa ñëw di leral mbir moomee ca leeralin gu gëna a leer ba borom bi subhanahu wa taala waxee ne al yawma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا كروك بيننت بي صلى الله عليه وسلم اجي اجامغا تي بيسوب اجوما يالله سبحانه وتعالى واتي سي موم ايه بي نكو تاي جي لا متلي تين دين جي متال كو سك متلي ليغا خامن موي خيول جي يالله سبحانه وتعالى بغون تي الاسلام تي خيت وي gërëmal leen lii di lislaam mu di seen diine kon yàlla subhanahu wa ne mat na mooma cheikh moustapha mu ne kon aaya ji cosaan la règle la ci bunt bi ci buntu ne diine lislaam dafa mat sëkk amul benn manquement amul lenn lu ci wàññeeku ba muy soxla jamono di ñëw ñuy rafetlu dara wala di ko ci boole amul moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne dafa wax ni am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini ma lam yadan bihi llah ca shura mu ne waaw ndax ñoom dañoo am ay associé ñoo xam ne dañ leen di bokkaale ak yàlla subhanahu wa taala yàlla di tër ñuy tër yàlla di rëdd ñuy rëdd ñooñee di leen rëddal di len digal ci diine lo xamne yàlla subhanahu wa taala joxewu ci digal ndax lola dafa am ndax yéen nit ñi ngay ne nangu di ak yàlla subhanahu wa taala keneen mu len di tëralal ci diine di len digte ne daf len nangam ak nangam ak nangam te loolu yàlla subhanahu wa taala diglewu ko joxe joxewu si ndigal doo fekk ci alquran doo koy fekk si njàngalam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi yàlla subhanahu wa taala yónni ndax loola am na kon ci ñaari aay yooyu da ngay gis ne kon nee na loolee la sunna ñëw kadalika di tegtale di leeral moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si dundam ci ay waxam ak ay jëfam ak mboolem ay textes yu jóge ci as salaf comme ni ñu leen ko waxee léegi dafa ñëw di dëgëral cosaan boobee di cosaanuk matuk diine ne diine dafa mat sëkk soxlawul benn yoon ñu siy dolli lenn bokk na rek si texte yooyee xadiisu jaabir ibni abdillah radiallahu taala anhuma bi nga xam ne alimaam muslim rahimahullahu taala solo na ko si téeréem bu wér ba jaabir ne كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين بحديث بجيخ سي حديث بابا موخجة يعني أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بحديث بجيخ كي أكتنك جابر بن عبد الله دفع نتلين ينتبي صلى الله عليه وسلم بدان خطبة بدان خطبة أي بتم دفع خونك تشر مو يكتي باتم mer lool ba mel ni ab général buy wax ak ay soldaaram na wax ji di dëgëree ngir jottali li nga xam ne mi ngi koy wax ak ñor gi mu ko ñor bokk na ca lam daan wax moom yonente bi sallallahu alayhi ci ay xutbaam gannaaw ba mu waxee amma baad ne wax ji gëna dëggu ci wax yi moy waxu yàlla subhanahu wa taala way yoon wi gëna jup njub yi gëna jup ci njub yi moy yoonu njubu yenente bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye la gëna bon ci mbiri moy yañi sos ak diko ko te yëg ne lépp luñuy sos lolé lañuy tuddé tuddee bidaa waye lépp luy bida ak réer la loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam da ka dan wax ci khutba diko ko baamtu ngir règle gi mu nek règle ak sax gi mu wara sax ci dundino julit bi mu xamne lu nek mo xam wax la wala jëf la daf ko war a ak règle bi ndax li deppona ak waxu yàlla subhanahu wa taala wax yàlla rek kay deug ndax li deppona ak njubu yenente bi sallallahu alayhi wasallam njubu yenente bi sallallahu alayhi wasallam a jub ci njubi ndax li nekkul luñu sos lépp luñu sos ak réer la budé ak réer la ak càngute la sawaral la yobul liyaadu billah mune kadhalika ne ci as-sahihayn de tereb al-imam al-bukhari ak tereb al-imam muslim ci hadith aisha radiyallahu taala anha mu nettali ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ni man axdata fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd képp ku sos si sunu diine jii lu sa bokkul nga indi ko si yëgal ne dees la koy delloo alimamu albuxaari solo ko noonu alimam muslim daal di koy solo ci man amila amalan laysa alayhi amruna kep ku jëf ab jëf te jëf joju mang koy jëf tegawul tegawul ci sunu ndigal du lu la yàlla digal du lu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam sallam digal sa bakkan dal sa bëgg-bëgg sa xel mo la ko jox nga ne da koy jaamoo yàlla subhanahu wa taala yëgal ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne fa huwa rad des la koy dello ndax yàlla bugg ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam bugg ko bal bi daala lu ñu sos la ak réer la dalay كذلك نانا نون لن يوشي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه سي حديث بوشيوم بابو من ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بس جبلنا أن يوم جاكارلو يوم waar leen waaraate wu jot xol ya ba ñoom saxaaba yi ñu doon jooy seen bët ya di sottiku seen xol ya tiit ba am ñu naan waaw yenent bi sallallahu alayhi waxam jiide dey dafa mel ni kuy tàggatoo waaw loo ñuy dénk yow ki yàlla yónni mu ne leen usikum bi taqwallah لِمَا لَنْ دِنْكُمْ مَوَيْ رَغَلْ يَاللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَ أَكْ دِقْ أَكْ تَوْبْ دِقْ أَكْ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دِقَّلْ يَنَنْتَيْنْ بِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ دِلَنْ تَوْبْ تَوْبْ سَنْ لِمِتْ لُو يَاللَّهُ وَخْ لُو يَنَنْتَيْنْ بِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَخْ تَوْبْ بَسَوَرْ كَذَلِكَ دِقَّلْ أَكْ تَوْبْ نِيَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جِيتَلْ تِيَنْ كم نقي الله وخيوان جاء القرآن وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم من توب نيلن جيته وإن تأمر عليكم عبد حبشي دونتني كلن جيته أب جاملة أب جام ميم سيبوزون بو فيكون ساخ كلن جيته كو ولا أب جاملة dëkk Éthiopie wala fu mu mënti dëkk misaal la waxin la dangeen ko war a topp mu ne wa innahu man yaish minkum fa sa yara ixtilaafan kathira yëg leen ne képp ko dund ci yéen dina gis ay wuute yu baree baree baree bari waaye bu boobaa nu ñuy def mu ne fa alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa الراشدين المهديين بوبا نغن موي سي سما ويون موم يننت بي صلى الله عليه وسلم لم ردون دي سنام دي يونم دي نيوبم نغن سا موي اك يون وا خليفه ام يباخيا ردون باي في ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان ابن عفان علي بن ابي طالب خلا آه، خليفه ام يباخ يوي لنج في باي يون nga xamne changé wuñu lenn li fi yenente bi sallam bàyyi won ak sahabaam yu bax ya yoon wañu ñu jaaroon rek mooy muccël fofé rek ngeen mëna jaar tek fa sen tànk ngeen mëna mucc kon ndax li ngay def tay yow julit deppona ak la sahaba yoy doon def ndax sahaba yoyé dañ dan gamul yenente bi sallallahu alayhi wasallam xolal bu fekke dañ daan gàmmul yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni xamne xam ne kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam dinkane nako ndax moone nañu roy sahaba yi rawatina xalifaam yu baax yooye ñu jub lañ di jubalaté bu fekke fekkee ñu ko def xamal ne lolu ak réer la ndax bàyyi nga yoonu sahaba yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam sallam junjoon na wuute dina am ku nek nan li la ñi nan gàmmu lii la ñii naan gàmmu lele la ñii naan pas-pas bi lii la ñii naan pas-pas bi lele la wuute bi yenente bi sallam junjoon na ko ci xeet wi ne dina am te am na te dafay gën di yokk comme ni ko cheikh bi di waxee ci kanam insha allahu taala waaye bu boobaa yenente bi saa sallam lan la digal jullit bi mooy mu ngoy ci njubam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di sunnaam waaye jaar ci yoonu saxaabaam yu baaxee loola rek ko mën a muccal mu ne yoon woowee tamassaku biha wa addu alayha bin nawaajiz na ngeen ko nangeen ngeen ci ngoy jàppin ko jàppin wu dëgër jàpp ko jàppin wu dëgër ba mel ni loo matt ci say dëgëj nit bu màttee dara ci ay dëgëjam di bëñ ya mujj ci gémmiñ dafay dëgër mattin wu dëgër lay nekk dind ko du yomb kon li waxin la ne sunna ak yoonu yenente bi soo sallam yow julit na nga sa nekk waaye na nga ko jàppee jàppin wu dëgër ba lu ne du lu nekk ñëw rek këf la yóbbu la wàcc loola sunna yóbbu la si bidaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yamul foofu waaye mu moytuloo xeet bi ne leen wa iyaakum wa muxdathaati al umuur wattu leen moytu leen yañuy sos ci mbir yi ci diine di ko tuddee diine te dafa juddu gannaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi indiwu ko woon ndax nee na fa inna kulla muhdathatin bidaa lépp lu ñuy sos rek ci diine te bokk ci woon loole la ñuy tuddee bidaa wa kulla bidatin dalala te lépp luy bidaa ak riir la moom nuñ ko junjee woon sànq ba tax na xadis bii nii comme ni ko cheikh bi waxee alimaamu ahmad rahimahullahu taala soloo na ko ak ñi nga xam ne ñooy asxaabu sunan di abu daawud ak tirmidi ak ibne maaja ak annasaa'i ak ñi nga xam ne ñooy borom masaanid yi ak maajim xadis bu siiw la boo xam ne borom xam-xam yu bare bare bare wér nañ ko xadis bu wér la amul kenn ku ku si mës a wax ci di ko ñàkk wéral ci boroom xam-xam yi jiitu yi xadis bu bu ñëpp d'accord ne wér na mu di ndénkaane gu màgg a màgg màgg bu yenente bi soo salaam dénk xeet wi bokk na ci athar yi nga xam ne di waxi boroom xam-xam yi jiitu yi ci saxaaba yi ak ña topp ci ñoom ci règle bu màgg bii ñu jëlee ci saxaaba yi moo xam lu ñu tuxal la jëlee si yenente bi soose la wala lu ñu wax la ñoom ñoom saxaaba yi la al imam ibn maaja rahimahullahu taala indi ca laytaayu téeréem ba di as sunan di ab muqaddima bu ama ama am solo si al ittibaa di topp gi jullit bi war a topp yenente bi soo sallam ak jaar si sunnaam bokk na lam sa indi si waxi ibni mas'ud رضي الله تعالى عنه بمرخينه إنما هما اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الصحابي الجليل دي عبد الله بن مسعود danañ mbir yi daal ñaar la wax ak yoon imma loo xam ne danga koy wax la wala jëf la tànn jëf yi jël benn yoon mu ne bu fekkee ci wax yi la yëgal ne wax yi gën a rafet ci wax yi mooy waxu borom bi subhanahu wa taala waaye bu fekkee aw yoon la wooy wooy tër ak wooy jaar yëgal ne يون ويغن سي يوني مو يون محمد صلى الله عليه واله وسلم دال دي واخ لا حديث بو خون ني يغلن ني ليب لو ني سوس سي ميري ريك موسى غنا بون سي دينه ليب لو ني سوس نانين مويتو يي ني سوس سي دينه ndax لب لو ني سوس لو بون لا بيدا لا تي ليب لو ak réer la comme niko hadith bi jitu waxe won mom abdullah ibn mas'ud ba léegi moom moo daan wax naan ittabicu wala tabtadicu faqad kufitum da wax nan len war rek moy top de len top yen xaar len rek ñu digal len ngeen def bu len sos dara ndax di teur ak di di di di digle loolu mom doy nañ len ci manam yàlla subhanahu wa taala digle na yenenteem bi sallallahu alayhi wasallam jotalina kon matna seuk yow amato manam nek fi di digle ak a tere yow dal top mo la war top mo la war yow julit kadalika noone la ñu jëlee si abdullah ibn al abbas ibni abbas radiallahu taala anhuma danaan wax ne ma ataa ala nnaasi aam aamun illa axdathuu fiihi bidca wa amaatuu fiihi sunna xata taxya albidac wa tamuutu sunan waliyaadu billah abdullah ibne abbas daan wax ne amul wenn at wu ñëw rek lu lul ne nit ñi dinañ ci xewal ay mbir xewal ay bidaa sos ay bidaa at mu jot rek nit ñi dinañ sos ay bidaa di ray ay sunna di bàyyi ay sunna di fàtte ay sunna di ko bàyyi ba bidaa di dund di fës di siiw di bari waaye sunna di nëbbu di dee nit ñi di ko fàtte di ko bàyyi waliyaadu billah te noonee mu ko waxee moom ibnu abbas radiallahu taala an noonu la amee depuis seeni jamono ñoom saxaaba yi ba sunu jamono ji at mu jot ak nit ñi lañuy sos ak pas-pas ya ñuy sos di bayyi ak bayyi di bayyi yoon wa di bayyi yoon wa muy sunna di xër bida bidaa ak sos ba bida di siiw lool di dema dema dem comme ni ko ni mu ñëwee si beneen athar si mas'ud ba bidaa boobu nit ñi dañuy dem miin ko di ko def di ko def ba bu ko nit deful sax ñu ne ko yow yaa bayyi sunna xale di si màgg nee na màgget ba di sa bijjaaw ba buñ ko bàyyee bidaa boobu dafay mujj ne bidaa bii dafa siiw ba nga xam ne tey ki ko dul def kooku mooy tumuranke nit ñi kay lañuy xam mooy ne wii dañ ko dañ ko war a def buñ ci jëloon exemple tey gàmmu gi ñuy wax tey ci sunum réew ak si réew yu bari tey xale dina si juddu màgg si gis nit ñi di ko def ba mu dema dema dem ba nit ñi yaakaar ne lii ci diine la bokk ba lu ñu war a def la ba nit ñi la leen di jaaxal mooy nit kuy ñëw tey naan gàmm bokkul ci diine wala bidaa la loolu mooy mujj nekk lu jaaxal nit ñi waaye ku xam li nga xam ne moom mooy sunna xam diine loola du la jaaxal loola tax seen wax ya ñoom asalafu saaleh dafa dëggu sa suñu reyee sunna rek bidaa dundu manam bàyyi gi ñi bàyyi sunna di ko rey loolu mooy dundal bidaa yaad billah kon tuxal yi ni ak texte yi nga xamne yu wér la yu siiw la yu leer la ci ñi nga xamne yàlla subhanahu wa taala jox na leen xam-xam ci wal islam nga xam ne du fàddu mukk du muk euh si ñoom bokk na si xissa yooyee si jamono yoyé jamono sahaba ya nga xamné bida mi ngi commencé di dugg ci xeet wi qissa ba xewon ci jamono ibn mas'ud ci kufa kufa nek sa al iraq iraq dëkk buñ nan kufa mom abdullah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu dafa ma sa tok kërëm fekk amna aw nit ñu nek sa jàkka ja def ay cercle am ñu leen jiite naan sàbbaal leen téeméer kàbbaar leen téeméer wax leen laa ilaha illallah téeméer ñu yor ay mbir ay xeer di di ko wàññee maanaam di sàbbaal téeméer di wax laa ilaha illallah téeméer def ay cercle si jumaa ji si jàkka ji di def loolee abu musa al ashari radiallahu taala anhu ba mu gisee gaa yi di def loolu si jàkka ji te c'est la première fois lol amul won ci l'islam mosuñu ko won gis dafa daw dem ci abdullah ibn masud radiyallahu taala anhu wax ko ko ne ko ah yaangi tok fi fii waye nit ñi amna na lu ñuy def sa jàkka ja amna luñ fa sos abdullah ibn masud ne ko yow lan motax tere wo len qala qultu hatta atika aba abdurrahman mune dama len fa bàyyi ngir ñëw ci yow wax la ko ci la abdullah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu ne bëret dal di dem sànni len ay xeer ne len ma asraa halakatakum ya ummat muhammad ay xeetu muhammad yena gawa alku hadihi aaniyatu nabiyikum lam tuksar وثيابه لم تبلع seen seenub yenente bi mu fi jógee yàggul seenub yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu fi jógee yàggul kii di wax ak ñoom mooy abdullah ibn mas'ud bokkoon ci ñi àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen bi mu fi jógee yàggul ay ndabam a ngi fi sax yàqoogul ndab yam daan jëfandikoo ndab ya ñi ngi fi tojul yàquwul yére yam daan sol ràppagul ngeeni alku nii di sos ay mbir ci diine ñu ne ko ma aradna illa al xayr aba abdirahman ñu ne ko cey ñun lu baax rek lañ ci jublu ah ñun de yiw rek lañ ci jublu woon comme ni ko ñu baree bari tey di waxee boo leen fekkee ñuy def ya ñu sos ci diine wala ñuy wax lo xamne lañu sos la ci diine amul firnde boole boo leen waxee ñu ne lu baax lañ ci jublu jaamu yàlla lañ ci jublu ñi lolé lañ tontu won waaye lan la leen abdou masud tontu kam min murid lil khair lam yudrikhu bari wat na nit bëgg aw yiw bëgg lu baax te du sa yegg sa yene rafet na lu baax nga bëgg waye do sa am lu baax yeggo ci lu baax lolou ndax da am charte bo baye nit ki ngir mu yegg ci lu baax ci diine lislaam dafa am ñaari charte ba sa jiitu mooy yéene bu sell yàlla rek a tax ngay def waaye ñaareel charte ba nga def lu ñu la digal ak nañ la ko digle bis boo bàyyee charte boobu nag naan man daal sama yéene rafet na lu baax laa si jublu te defoo lañ la digal ak nañ la ko diglee dangay sonn rek waaye doo am lu baax liyaadu billah moo tax mu ne leen bariwaat na aw nit ñu bëgg aw yiw te duñ ca yegg looloo tax moom abdullah ibn mas'ud ba léegi daan na wax naan al iqtisaadu fi sunna خير من الاجتهاد fi البدعة أو أحسن أو كما قال رضي الله تعالى عنه من nga yam si luñ la digal mu di sunna nga yam sax moom moo gën fuuf ngay góor góorlu ci bidaa di sos même boo see def lu baree baree bari di si góor góorlu di si sonn nga yam si sunna siñ la digal nga koy def loolu moom moo gën fuuf loolu tax cheikh bi wax ne kon bidaa lépp lu bon la dara baaxu si lépp lu ñu ŋàññ la dara rafetu si comme ñenn ñi nuñ koy waxee mbollem luy bida da fay dugg ci li yenente bi sallallahu alayhi wasallam tere comme niko hadith yi ñu wess kullu bid'atin dalaala bayul dara amul lenn luñ ci luñ ci tere lola waral al imam malik rahimahullah taala mi nga xamne ñu bare bare bare ci sunu gox yoyé nenañ ci ngiram lañ lañ lañu jokk moom ci jëmmi boppam ay texte yu bare baree baree baree bari ci di jaaj ji ak di tere lii nga xam ne moom mooy sos ci diine ak di wotuloo nit ñi bidaa imaam Malik ku taroon ci lool la ku taroon si lool la moo tax dina yéeme lool aw nit ñuy askanoo si moom ba noppi wuuteeg moom lool si bunt bi nga fekk leen ñu ñu nekk ñu sawar ci bida ñu sawar lool ci sos ci diine ñu sawar lool ci ay pas-pas yu yàq yoo xam ne yu wuuteeg pas-pasu lislaam la yu wuuteeg pas-pasu al imam malik rahimahullahu taala la loolu lu yéeme la lu yéeme la moom si jëmmi boppam moo daan wax naan ما لم يكن لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دينا فإنه ليس لنا بدين لب لو خمنا نكلون دينه تا يا sahaba muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ay àndoom mënta nekk tey diine mënuñoo nekkal diine munta nek sunu diine lépp loy diine wo tay yow julit diko jaamo yàlla subhanahu wa taala xolal ndax sahaba yi defon nañ ko ndax nekkon nañ ci bu fekke nekku ñu ci won rek xamal ne du diine bul son reg règle la xamal ne du diine bu doon diine sahaba yi dinañ ko def dinañ la sa jitu bu doon aw yiw la lu baax la ñoo la say jiitu comme nam daan waxee ne lan yusliha axira hadihi al umma illa ma aslaha awalaha xeet wii day amul lenn lu ko mën a baaxal yëwénal ko defar xeet wi ñu mujj si ñoom lu dul la defaroon xeet wi ba njëkk bu njëkk mi saxaaba ya ak ña toppoon ci ñoom ca la ñu nekkoon ba mu loon seen dund yéwénaloon seen diine tegoon loon tegoon loon ci yoon loolee rek moom moo mën a defar xeet wi ba mu jum jamono ba àdduna di tukki kon alimaam Maalik rahimahullah ku taroon la ci bunt boobu ku daan fatt bunt bépp bunt boo xam ne bunt buy ubbeeku la ci bunt bidaa ci lislaam ak li ñuy tuddee saddu dharaa lépp baare lépp loo xam dafa mën a yóbbu nit ki si naka su dul noona ku taroon la si loolu te képp ku jàng téeréem da gis loolu képp ku géeju si ngiram maanaam rawatina si buntu pas-pas di gis loolu ba benn bis ku ñaan Abdurrahman ibni Mahdi di borom xam-xam bu mag imaam dafa ma a ñëw si jàkk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi di julli la mu lam làmbaayoon maanaam dañ daan li tuddee rida genre mbubb la rek si ñun léegi ndax dañ daan wodd di làmb làmbaay la nga xam ne moom la sër ba mu làmboo woon daal di koy dajale teg ko si kanamam di julli maanaam mu def yaramu neen teg ridaam di di julli ci jumaa ji ci jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko gisee dafa digle waaw kan moo fi nekk ci takk der yi mu ne jël leen këre ngeen dem tëji ko ñu dem tëji ko gannaaw gi bi ñu xamee ne kii dey ki ñu def lii day borom xam-xam bu mag la muy Abdurahmaan Mahdi ñu indi ko ci alimaam Maalik ne ko kii moo def la mu defoon sànq sa jumaa ja nga digle na nañ ko tëj bi ko al imaam ibnu mahdi waxee ngàntam maanaam dañoo nekkoon ci jamonoy tàngoor mu dindi ridaam daal di koy teg ci kanamam di julli te loole amul kenn ku ko defoon amul kenn ku ko mës def mu nekk lu bees ci jumaa ji al imaam loolee mu tere ko mais bul sos si jàkk yenente bi sallallahu lenn loo xam ne musu fee am daal di koy wutal ngànt daal di koy bàyyi waaye si ak tënk jubluwaay bi mooy ku taroon la si bunt boobu moom alimaam Malik si lépp loo xam ne lu ñuy sos si diine la tey loolu maanaam nit ñi dañuy woyofal maanaam ne lu simple la maanaam nit koo xam dafa ñëw jël la mu yoroon yépp ne ko bàjj si kanamam si jumaa ji di julli waaye loolu ñàkk xew gi mu mësta xew ci jàkka ji imaam Malik na ko lii bu ko defati ci jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon jubluwaay bi moo doon ne imaam Malik ku taroon la ci buntu boobu ci buntu ne diine jii buñ ci yokk lenn loo xam ne bokk si li nga xam ne moom la siècle yi jiitu woon nekkoon di saxaaba yi ak ña toppoon ci ñoom jullit bi boo bëggalee sa bopp aw yiw ak yoon na nga nekk si loola na nga nekk si loola lépp lu wuteeg loola bidaa la te bidaa bu ñaaw lay nekk comme dars bi dafa xaw a gudd dañuy daal di taxaw foofu ba ëllëg insha allahu taala ñu dugg si ñaareelu jotaay bi ngir leeral kadalika laytaay bii nga xam ne cheikh mustapha xafidahu allahu taala laytaay na ko téere bi balaa ñuy dugg si bataaxalu alimaam euh, muhammad ibn ibrahim رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين